di dem ci bébé Saloum. buy la xo buy doomu buy. doomu buy ban bu ñu màcc ba bu ñu màcc ba pare wala. doomu buy bi tax ñu naan buy guy. doom boobu moom la ciy dóor da koy dóor toj. gis nga toj na ko euh. ci tànk ba la koy toj làmb lépp aada làmb lépp culture la. dafa rafet làmb dafa rafet dafa taaru Ousseyn. tey làmb daal dekki baa ji li làmb moo tax daal ñun suñu làmb ji. nañ leen ñu dimbali. bu ñu ko kenn yàqal. déedéet. ndeysaan. dafa am kenn yàqal dafa am loo xamante ni dafa amoon. mooy la njëkk ñi bokkuloon ci làmb ñoom ñoo yàq làmb waaye yàlla ñu dimbali ba ñi nga xamante ne ñoo bokk ci biir làmb ñoom ñoo ñu yàqal suñu làmb keroog boo xe xoolee li xew ci diggante ñaq jariñu ak Alioune rafetul waaye mbër yi tamit ñu ngi ciy bàyyi xel ndax mbër mu ànd ak xale rek di nga ne ko yamal ma fii defal ma li lu xale bi nar a def nga récupéré ko loolooy làmb ndax mbër yi tamit ñoo war a gën a sàmm làmb Ousseyn. bàyyi ji li li liggéey di ci tedd. boo ko sàmmul kenn du la ko sàmmal. déedéet kon ñoom ñoo mën a sàmm loolu. billaahi lay la ngay xëy di ci am loo yóbbu sa kër. ku la ko dana yàqal na ko yem ma fee. maa la ko wax dafa am sama benn xarit boo xamante ni Aliou Diome ndeysaan da doo wax wax bu am solo nee na ma jiili ma ne ko naam mu ne ma li may wutee xaalis ku ma ko xeebal ma bala te mbër ku ko xeebal ngembam lii muy takk dalay bàyyi. supporter bi nga xamante ni day liggéey di matin au soir lépp lu mu am indi ko ci mbërëm ku ko taggal mbërëm. la bëgg waaye boo xasee mbërëm mu lay seetaan dina la mere. dañ ci gis supporter yoo xam ne bu seen ba amee combat dañuy daaj seen condamné di waaj seen i t-shirt di waaj lu ñuy jëndee ticket pour ñëw làmb ja kon defe naa ne làmb am na fu ñu toll ñu ñi nga xamante ne ñoo ŋànk ñoo bokk ci làmb war nañ koo ŋànkaat jàpp ko bu baax a baax te xam ne lii dafay dundool dafay dundal xol ndax boo xoolee yeneen dëkk yi discipline li fa am yëpp demewul nii mais ñii suñu suñu aada la suñu cosaan la dañ ko fonk sàmm ko exporté ko yóbbu ko ci yeneen réew yi te war naa mën a nekk ndax ma yaa ngi def jéego ñu ci nuyu suñu mag jooj di Bombardier ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax ca ndam la mu am. waaw Bombardier Ousseyn am na ndam lu rëy keroog te Suisse waneeti na boppam ndax mun nañ ne Bombardier mooy mbëru senegal bi njëkk a def sport bii di MMA keroog gis nañ Siteu dugg na ci gis nañ Reug Reug dugg na ci Garga Mbossé ñu ngi ko ko doon proposé mu ne nañ ko may. yeneen mbër yi tamit ñu ngi ciy am jéego waaye bu ñu fàtte ne lépp lu ñu am rek làmb moo leen ko may sport làmb bi nañu ko fonkal làmb ji moo tax touristes yi fu ne la ñuy jógee ñëw taxaw ci tribune bi di seetaan làmb parce que taaru làmb ñi am làmb na dañ koo war a fonk dañ koo war a téye. waaye jii lii di dafa rafet. Hmm, rafet na trop ba si meeku takk jaaji yi takk sengoor yi takk xaaw yi ci kawam ñaap. bàyyi ji li amul feneen lu dul ci làmb tubaab bi lii da leen a jaaxal. bu ñu gisee mbër simeeku waa mbër Gambia ngoog Leket ak ngoog. Leket Baara France. France ñoo ñoo def fii seen signature. war koo bëre fële ci Gambia. ca Gambie. Jamaïcain daal xaw ma xale la waaye bu dee xale la. xale buñ sol yàpp mag la sol yàpp mag la. wallaay daray xale newut ci moom. la gën a neex Gambie la la tëgg. nangu naa liggéey am na jom bokk na ci réew mi moom Jamaïcain. kenn du jam. nee na keroog su ma neexoon mbëkkanteeg gaay dugg ci gaal yi dem Espagne. waaye samay morom dong koy def dañoo xamut. tukki tedd dafa lu muy def nii. waaye toog tedd dafa am. Franc am na lu mu joxoñ Bébé Saloum. Franc Bébé Saloum. am na lu koy dóor ci tànk bi bañ nar a laale ñoom ñaar. Bébé Saloum soppeeku ne bàyyi ji li. Jamaïcain li mu tëgg sax xamu ko Ousseyn. xamul kenn du jam xamul sax li mu tëgg. kenn du Jamaïcain. am ji xam naa ne mbooloo mi ñëpp wuy si nañ. waaye bu buñ li ci gën a garaaw mooy bàyyi ji li. da nga gis combat bu am mbër mi bëree duna ay supporter am génn leen ñu ñibbi dañuy toog xaar grand combat bi. looloo am tey ci làmb jamaïcain bi ku daan rek ànd nga ak say supporter toog yi tamit bàyyi leen xel ci loolu démb boo xoolee diggante Angleterre ak majj majj booy seetaan làmb ji final bi da ngay yaakaar làmb ji kenn newu fi. huis clos nga koy foog. ndeysaan te làmb ji boobu ñëpp a ngi fi woon waaye mbër mu daan yóbbaale sa mbooloo bokkul luy taaral làmb mbëri tamit nañuy xoolaat taxawaay bi ci làmb. war nañ cee bàyyi xel am na Senghor bu muy wan bébé Saloum. bés dañ koy rafetal. joxoñ na ko Bébé Saloum takk na ko ci ngemb la. ndeysaan. Franc Bébé Saloum. maa ngi seen entraîneur Franc bi. kooku di lato. Ousseyn am na lu Sénégal seetlu wut. muy lan bàyyi jiili. tam ma seetlu ko wax ko. demal mu dem. Adama demal demal demal dindi. ah ma continué. am na lu Sénégal. seetlu wut. muy lan baa ji seetlu ko. muy franc mi écurie parcelle mbooloo la nekk. waaye tey benn dirigeant boo xamante ni jiite na parcelle mbooloo àndut ak franc. ñu franc ak may laaj ànd Moussa Dioum franc ñi ànd ak moom tey ñëpp ñu ngi nekk ci jàmbaar Wrestling Academy. muy Papa Sow Papa Sow moo ko jiite. coach Lato bee mooy entraîneur ba. gis nga laay njombar ci entraîneur principal yi la bokk. maa ngi fa gis Balla Diouf. noonu kon Papa Sow euh, kii di Franc mën naa ne ci écurie boobu la nekk waaye daa indi tey licence bi nga xamante ni mooy licence su Parcelles Mbooloo loolu nag dinañ xam ci kanam tuuti bu làmb ji jeexee la jeexal la jaaxal askan bi yëpp dinañ ko xam ndax. ci wasaare làmb Balla Diouf bi ma ko laajee léegi nee na ma Parcelles Mbooloo mooy parcelle émi euh, Jàmbaar Wrestling Academy mooy parcelle waaye ci kanam tuuti dinañ ci xam waaye en tout cas daal coach bii di lato moom moo yor jàmbaar wrestling academy bu Papa Sow bi. bàyyi ji li leer na fii ngeen koy mën a amee ci wasaare lamb wasaare TV. arbitre baa ngi wax ak ñaari mbéy jiili. arbitre bi ngi leen di wax Ousseyn li règlement bi nangu ak li mu bañ. tey ak Bébé Saloum. tey la 8 mars bésub jigéen ñi. ndeysaan ñu ciy sargal képp kuy yaay. ndeysaan xam nga ni suñu xarit ba tey la anniversaire am. kooku kan la. Ndeye Ndiaye mu inte un ndeysaan ñu koy souhaiter joyeux anniversaire Ndeye Ndiaye bu gàtt. 29. yàlla yàlla yàlla Ousseyn yàlla am 2 mètres 85 wala 1 mètre 85 Ndeye Ndiaye li mu gàttee ëpp na. est-ce que matu 90 centimètres. ndeysaan boo taxit ñu koy souhaiter joyeux anniversaire. maa ngi koy nuyu moom Ndeye Ndiaye. ndeysaan xale bu baax la ndeysaan. Habib baa ngi wax ak ñaari mbër yi. mu ngi wax ak ñoom ñaar Bébé Saloum Franc Franc moo ne. Habib bi sifflé na diggante Franc Bébé Saloum. mbokk yi arbitre bi sifflé na samedi wala dimanche 8 mars 2020. arène nationale Jam Production moo ñu fi woo. il est 20 heures. Franc cokaas na léegi. Franc Bébé Saloum. Franc wàcc na. Franc moo leen féetee ndijoor Bébé Saloum féetee leen càmmoñ day dem. Franc day dem. Bébé Saloum cokkaas na cokkaas na Ousseyn. Bébé Saloum Franc. Franc day dem. waaye sa seetlu nga li ma seetlu. déedéet Ousseyn lan Franc bi dafa wàcc yow. daa bëgg Bébé Saloum dugal mu daw jiwal ak moom. ci tànk loolu wóor na. ci tànk yi la jëm. est ce que loolu wóor na bàyyi ji. Bébé Saloum dóor na. cokkaas am na est ce que loolu wóor na. Bébé Saloum dóor na Franc bi fayu. ñoom ñaar dañoo xeex. Franc Bébé Saloum Bébé Saloum doon na Franc ko eh, wala déet Franc añ na daan da daan da daan daan na ko daan na Bébé Saloum Franc daan na Bébé Saloum Bébé daan na Bébé Saloum ala daan na ko Franc daan daan na Bébé Saloum Ousseyn da ko añ takk ko mu jégg teer oh daan na Lamine Franc daan na Bébé Saloum Franc fu mu jëm Ousseyn Diop. Franc daan kat moo ko mën a téye. looloo ñu jaaxal Franc. Franc kat moo mën a woo ci ci bëre. baa looloo ñu jaaxal Franc mën naa bëre. Franc am na doole. Franc mën naa xeex. kenn du moom kan mooy téye Franc. Bébé Saloum am na lu ko bett tey. ah Bébé nee na bàyyi na bëre. Bébé Saloum am na lu ko bett tey. dem na bàyyi na bëre. Bébé ko bett wax bàyyi naa bëre. am na lu ko bett moom bébé. Franc ngoog. Njaago baa baa ngi